parce que dañu gis ne ñoom moom rek moo mën a expliquer bu Leye moom rek moo mën a expliquer ñan ñoo fa gëj ak kañ la fa gëj ak kañ la déggante moom téléphone bi mu ko yóbboo hôpital nan la def ak moom ak yooyu moo ko mën a xam Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. nga yow Diaz ñu xam ne am nga amoon nga relation ak nga xam ne moo di Aziz Dabala hmm. avant tout ñëwoon ñu sa relation ak Aziz Dabala waaw xam nga Aziz moom suñu suñu nit la woon hmm. et puis suñu xarit la woon euh, dama leen di wax benn affaire pour gars xam ko rey nañ ku baax hmm? rey nañ ku baax rey nañ ku musta am kenn problème macha allah nit ka nga mëbët bi mu amoon moom mooy fecc bi muy def. Mhm. suturaal yaayam dimbali yaayam. reena nit ka nga xamante ne artistes yi day am ay talent am ay problème mais mosoo ko dégg ci ay talent mosoo ko dégg ci ay problème mhm. reena nit ka nga xamante ne dañ ko yàqal carrière am. parce que mhm. maman bi mu fi nekkee dafa téye bi. téye danse bi parce que danse dafa am ñaari façon de danse. dafa am individuel am calligraphie mais dafa ñëw tey calligraphie bi tey vidéo clip bi ngay gis yëpp at grand théâtre yëpp Aziz moo koy fecc. Aziz bi nga xamante yàgg na. depuis ay deux mille. Mhm. deux mille cinq lañ xamante. nan ngeen xamante. Aziz ñu ngi xamante ci euh, dama amoon dama nekkoon ci benn nekkoon benn groupe. groupe ci numéro deux mhm. bu Papa Ndiaye ci ñun ñoo yoroon groupe ci numéro 2. Mhm. après ñu nekk di fecc di fecc ba ci yàgg après ci lañ xam Aziz Dabala. moom tamit mu nekk benn xale ba nga xamante ne vraiment da doon fecc Oscar de vacances. Mhm. ñu xamante ci loolu bi ñu xamante nag ci la ñuy commencé di ànd jot nañoo ànd sax ba bokk ay groupe. Mhm. après ci lañ ànd tourné benn clip Baye Laay bu Yves Niang. Mhm. Euh, tourné yeneen clip. mu doon nit ku baax na nit ku yaatu. bi ma koy Aziz bi ma koy xam dëgg-dëgg après mu ngi feccal Pape Diouf. Pape fecc ko du Pape Diouf la woon après ni muy fecc noonu di fecc noonu ba jógee ci Pape Diouf jaar ci ay Ndeye Linguère jaar ci ay Abdou Guité Seck jaar ci ñu bari. Mhm. mais daal li moom la mën a wax ci Abdou mooy que nit la ka nga xamante ku sonnoon la ci aar. Mhm. te maman bi ko jëlee maman boobu la ko aar waroon fayee. ñu jël ko. Mhm. ñu def nag lu doy waar la nga xamante doom day metti na. parce que li tax metti mooy que tey nit ka nga xamante tey day bégal ay doomi amul dara lu dul bégal ay doomu aadama. Mhm. amul dara lu ay xaritam yu mu àndal yaakaar leen di ànd ak ñoom ci ànd bu rafet. Mhm. ñu def ko jëf ji ñaaw na trop ko macha allah macha allah jëf ji ñaaw na euh, wax bi rafet na. Mhm. comme ni nga ko waxee waaye tamit nag ci biir ray bi. ñu am ko xam ne dañ ko si exceptionné. muy ki nga xam ne moom moo di euh, Nabou Leye. ñu buggoon xam exactement lan moo doon sa xalaat. waaw Nabou Leye moom Nabou Leye bi ñu koy xam yàgg na quoi depuis depuis ginnaaw raay la ba Pikine xam nañ ko bu baax. quoi mhm. vraiment. Mhm. Euh, doy na waar parce que ñëpp xalaatuñu woon ne ah Nabou Leye war na ci mun a bokk parce que tey Aziz moo créé Nabou Leye. moo créé Nabou Leye moo créé ñu bari ñi ngay dégg tey ci aar bi ñu leen di tudd ñu bari Aziz moo leen créé. Mhm. tey ñaaw na ñu dégg ci bin bin bin man man moo dëgg yàlla bi ma déggee affaire bi dama ne ah lii am moom xëj na Nabou Leye war na ci mën a am. même bu xamul ñu ko def war na mën a xàmmee. Mhm. parce que parfois yow mi nga xamante ne tey bu ma dara jotoon tey ñu bëri dañ naan nañ seeti Mokoudia. Mhm. wala nañ seeti Salim parce que li ñuy déggante téléphone bari na. Mhm. même boo leen di déggante téléphone police dafa yoon dafa am. yoon tey c'est pas ne da ngay ñëw rek ne bokkuma ak nit ki wala duma ma nit ki mais nit bu deewee même ñu jot a dégganteeg moom téléphone ñi xam lu waa dañ leen di topp. kon tey c'est normal ñuy comprendre ne il faut kun dégg ne semaine boobu ànd nga ak yow yoon la ñu woo parce que c'est pas il faut ñu comprendre wola dañ lay japp la. Mhm. wola pour xam la pour mhm. enquête la parce que mais bu enquête kan enquête enquête. nit ñi enquête. wa nit ñi enquête. Mhm. motax tay c'est normal ñu mais dañ ko garde à actuellement fi ma wax ak yow ngi à garde vue. dañ ko amuñu des détails yo xam peut-être mom mom mën na impliquer ci li nga xam moy moy moy moy parce que dañu gis né ñom rek expliquer. na mhm. moom rek moo mun a expliquer ñan ñoo fa gëj ak kañ la fa gëj ak kañ la déggante moom téléphone bi mu ko yóbboo hôpital nan la def ak moom ak mën a mhm. moom moo mun a leeral mu leer mhm. juste ko bu leeralee mu leer bu leerul dañ koy tëj mais mais mais bu ñu ko mais ñu am ñu am yu ñuy dégg ki nga xam ne moom moo di Nabou Leye ak euh, euh, Aziz Dabala dañ doon génn ñoom ñaar est-ce que yaakaaroon ne am na benn jalousie bu am maanaam ci ray bi est-ce que amul est-ce que yaakaaru am na benn jalousie bu ci am tamit boo xamante ne bi moom moo indi ray bi. waaw c'est normal war na ci mun a am parce que lu tax mu ci am mooy que bu fekkoon ne dañ nekk ki ko rey dafa dëkk Tamba wala ki ko rey dafa dëkk Podor mais ñoom ñëpp ñu def geste bi biir ginnaaw laa leen dëkk kon loolu leen mun a dégg mooy ko am na benn jalousie bu nekk ci biir. parce que tamit parfois day dal comme banlieue bi wala beneen gox sax mun nga dëkk ci koñ yàlla dimbale la ñu lay gis ngay fës wala yàlla gis la ngay am teraanga seen kanam. mun na ñu ànd ak yow sa fexeel la. Mhm. waaw c'est normal ñu xalaat loolu. Mhm. waaw ba tey bu ma yeewoon fajar dama naan woo leen na bu lay laajte ko c'est normal ñu wax def loolu. ne yow la mais seen normal bu dara amee ñu ne na bu la. Mhm. dañ ko woo laaj ko lan moo xew. wala boo ñi mu doon àndal est-ce que soxoreewuñ ko loolu c'est normal dafa. mais mais ki ñu jàppul fële ci jannatu. xam na ne moom moo di Aziz Dabala gis na famille yoom danoo génn ne ah, moom kat nit la koo xam te ni xelam demewul noonu. loolu ñu ko gis situation yi bëree bëri bu ñu jàppee dara ko def dara rek Sénégal retourné wu. dina fa def ni mooy mooy bi. waaw mais ah. waaw euh, doogu ma doog maa ci dog bi sax euh, boo demee Europe maa dem États-Unis dëkk yi xam dañoo am peine de mort est-ce que dinañ xool a ko xool parce que dañ ne ku rey ñu rey la loi bi xawul loolu Sénégal nag dañoo waroon teg ba nga xamante ne ku rey duñ xool ndax wër ngaa ko wérul ñu rey la parce que tamit wax deug yalla li Aziz doon wax deug la quoi masla bi daf mu ngi bëgg bari tay yagul dara nga wax lolu yagul dara ñu ray la comprendre tay yoy ñuy def non yoy lañ wara bayyi ay nit ray nit ba pare ñu né wëru to nak dafa defon mais wëro lan mo la yobbu ci nit ki ak nit ki lan la yor ak kan mo la jaay nit ki ba nga fekk appartement ray ko lolu ku wérul nako def ñu wérul mo ñu né ci mbéd mi di dox sol ay sakar ñu ñu mais ku yor conscience bopam dem appartement nit fekk nit ci bir appartement bi ci leen dégg ñu ne lekk nga fa naan nga fa ba pare wëbbati ku rey nit ki mais kooku wëru gars yi wër na lu ñu def ñoo ko tey. parce que sëñ naa moom ñu gis coow li bari lool ba sax ñu jël ay photo ñoo xamante ni bokkuñ ci seen yoon nekku si. Hmm. koy taf di leen wax ne kii moo rey nit ki est ce rafet na. waaw loolu réewande ñu ne ci réseaux sociaux bi réew la maanaam loolu bëgg information ak ay bëgg ay vie ñu nekk ci réseaux yi ñoom ñooy def yooyu. mais tey am na ñi xamante ne tey par exemple ni la téléphone yombee wala ne internet yombee am na ñi nga xamante ne internet yombul leen dañuy nekk ba Fuuta wala ñu nekk ba Podor gis ñuy affiché seen photo nit ñi di leen ko wax te ñoom si yëguñu ko Sénégal nan bàyyi tey dara bu amee rek ñu jékki-jékki jël photo nit taf ko ñu koy def ci réseaux yi bari nan te loolu rafetul parce que kenn bëggul lu tax yow miy def loolu doo jël sa yaay nga taf ko do jël sa baay nga taf ko nga jël sa frère. mais ñom aussi tamit ñoy wax lo xamanteni day impliquer ci li nga xam moy la personne concernée. parce que des fois nit aussi tam bu déggé nga façon communiquer rek. Mm. mën na mën na juger ci sa apparence ak côté bi nga xam yow yang koy waxé wa xam nga lolu tay par exemple lolu ba États-Unis bu fépp ci aduna da fay am. Mm. parfois nga gis nit ñi nga xamanteni ñoy ray rey paré ñoy ñooy ko ñoy di wax. parce que li tax ñuy ñëw di wax moy que dañuy bañ a ñëw ci dëj bi ñu soupçonné leen wala ñu bañ wax ñu soupçonné leen moo tax ñuy ñëw di mur lolu maanaam fii ba àdduna bi di tukki ku mu mës a rey ki ko rey bu ko jegee di nga ko gis ci communication mu ñëw wax am na ñoo xam dañuy def erreur de communication bu jàpp ne ñoom ñoo rey mais am na ñoo nga xamante ne ñoom buñ waxee rek automatiquement da ngay xam ne ñii tey même buñ reyul seen loxo laale na ci. jàpp nga ni. Mhm. Euh, li nga xam mooy cause yu décès bi. Mhm. génn ci entourage bi ak yu rafet comme ko ñenn ñi waxee. waaw. waaw parce que xam nga problème bi mooy bu fekkoon dañ ne da ngaa ñëw dajji néegu nit ki wala dajji appartement nit ki nit ñi mën na d'accord ne xëy na benn agression la wala dañ ko jaare kooku ñëw rey ko mais ku dugg sa biir néeg tëj néeg bi rey la ba pare wëkkati ko génnaat tëj loolu ñi la jege rek ko mën mhm. parce que ñi la jege ñoom information wan na ko yor nga xaalis wala ñoom ñoo la gis benn en en la def la loolu loolu rek la mën a demee. Mhm. waaw jaa ñu toll jamono ji nga xamante ne Sénégal rey yi bari na te kenn du ci wax. Mhm. dañ lay rey après du mujjee fenn. Mhm. lan moo ci sa xalaat. waaw dañ leen di rey te du mujjee fenn bu ne dañ lay rey man dañ maa rey man ñoom dañ leen di rey te du mujjee fenn. <laughs> comprendre nga Sénégal nag li ñu war a def mooy que euh, c'est pas ne police warut yem rek ci ay oto. police warut a yem rek ci ay oto. gis nga boo gisee maanaam police européens yi américains yi aayoon. aayun de mhm. xale moo leen dimbali mhm. ah nit ki moom yàlla li def ci xel mi mu def ci yow moom moo la gën a aay moom mu def xel mi ci yow mhm. mais xel mi la bëgg nga dawal ko ñoom dañoo fexe ba seeni koñ am caméra fexe ba loo def dañ lay jàpp comprendre fexe ba kër yëpp am ay caméra te dañ ko yombal nit ñi technologie ba lépp am comprendre ba pare loolu lañ waroon def fexe ba lépp yombuñu ñu ñu jumtuwaay yu bëri yombuñu ba pare police c'est pas da ngay yem yor oto kese police ay moto ñu ci koñ yi xam li xew kaaraanga askan wi séparé da nga yëm ci frontière kessé da nga wara djégé askan wi mhm. té ñun police soré sore jegewuñu fi tay bu fi crime amone di nga yuxu ba dé bala police ñëw suba comprendre mhm. wala nga wolé ñu nan lu xam est ce que dëgg di tiital askan wi nan suma ñëwé bu amul lay kooku day tit ba tax na dara day am ci kër bo ñëmé yëkëti sa téléphone woote parce que bo wootee du ñëw wala dañ lay menacer ba pare info sénégalais xam seen droit que ne bu ñu nit ci kër nga dëkk ci kër gi yow c'est pas ne boo waxee information bi dañ lay jàpp déedéet sa yoon sa dëgg nga nekk fekk woo fekk woo da ngaa dégg ay yuuxu woote. Mhm. mais ñu bëri dañoo foog ne bu dara amee ci kër bu nu bu nu re bu nu reyee nit yow nga wax rek yow dañ lay jàpp déedéet du noonu. Mhm. il faut nga bokk ci ñi concerné pour ñu jàpp la. ba pare benn affaire bu jaam solo mooy que bu dañuy yokk sécurité bi bu ñu yokkee sécurité ba pare ñu teg la nga xamante ne ku dee dañ la koy def ku rey dañ la koy def. Mhm. parce que Sénégal fii gis nga te tëj waxuñ benn peine de la mort dañoo ne ku tëj rek ku dee rek dañ lay tëj après mun na mun na xam na temps yi passé gisoo fi kun ka nga xamante dafa rey nit ñu juum grâce ko mais c'est pas normal. ah mais c'est pas ne gouvernement bee ko def mais ñu nekk ci police ñoo waroon surveiller xam ñi nga xamante ne dañ leen war a ñu war a mhm. mais l'essentiel bi mooy daal peine de la mort lañ fa war a teg ku rey ñu rey la. macha allah jaajëf rek ne nit na. tey bitim réew boo gisee gars yi xam na la ñuy def boo defee benn crime bañ jàppale dañ lay jox benn tableau nga taxaw ñu photo la la mhm. pourquoi nga xàmmee euh, euh, Ino ak Alex mhm. bu njëkk dañ doon def noonu Ino ak Alex dañ doon teg ñëpp xàmmee leen léegi ku reyaat yi nañ leen dajji fang ñëpp xàmmee leen ku sàcc dajji fang ñëpp xàmmee ñu lay moytu mais Diaz euh, information boobu nag maa koy dégg affaire wéef beeg yooyu quoi mais l'essentiel bu mooy que nee na nit kuy dimbalee Aziz la te daf ko yàgg di dimbali parce que tamit hmm. ñun bi ñu nekk danseur di danse wala ñu nekk ay artiste ñàkkul ay nit ñu ne bitim réew bi ñu dimbali quoi xëy hmm. na tamit kooku daf ko dimbali ci wërsëgam pour mu joxe ay paasu màggal bi mu koy joxe xëy na tamit nit ñi dañ ko yëg yëg na yor na benn somme bi ñu yoole ko man loolu laa ko xalaate quoi donc nga ya? ko jàngatee waaw mais tamit cuune nan parce que mënoo rey ba pare wala dugalee dem di enquêter ci wéef ak wéef ni mu mel ak dëkk fi mu toll te poste wéef boo gis am na caméra dëgg la waaw kon yàlla moo feeñal foofu. acca Sidy Diop mi nga xamante ne mi ngi ci. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.